jërë ngeen jëf ci seen àndina ak la meilleure chaîne net la chaîne de leaders Senbuzz TV mbokk yi mbégte ak kontaante la am ci di janoo ak yéen sur la chaîne des leaders xam ngeen ni euh, baaxoo nañu ak yéen képp koo xam ne ràññee ngeen euh, taxawaayam ci doxalinu société bi ak tolluwaayam également képp koo xam ne rek quand mu ngi liggéey liggéey boo xam ne euh, apprécié ngeen ko tey nag suñu benn moment bu ñu dootul présenté suñu tata Marème Niang cinéma xam ko culture xam ko xam ngeen ni bokk na ñi nga xamee ni demoon nañ file ci Ouagadougou file ci Fespaco ba indi fa raaya boo xam ni indi na ko pour Sénégal mais également indi ko pour li nga xam ne mooy culture africaine de manière générale moom la rédaction wu seen bés di am ak jotaay yow mi bàyyi xel arrêt Mère Thiaba suñu tata ba fa nekk ñu koy wax Mère Thiaba moom la am ak jotaay tata du ñuy commencé rek di la gërëm vraiment ci disponibilité mais également euh, di jégalu quand ci retard bi nga xamee ni am na. Euh, salaamaaleykum maaleykum salaam waa àdduna waa Sénégal nuyu naa ñëpp ziar ma amee habitude di ko wax rek lëfu kenn yëfu ñëpp la. Mm-hmm. moom sama yëf yëfu ñëpp la macha allah. Uh-huh. tey nag dalal ñi nga samay xarit samay mbokk samay am di jàmm lañu waa seen buzz ñoo ñëw seet si ma ma dalal leen ñu fas yéene rek waxtaan ak yéen nga xam ne rek bëgg ngeen koo xam ci Marème très bien alors ku ñu tata Marème Niang di nga wax également li nga xamee ni mooy cinéma mais xam nga léegi jamono avancé na ba nga xamee ni léegi xale yi dañ leen di woo casting euh, producteurs yi bari na maison de production yi bari na mhm. yéen seen jamono loolu amul woon tata ñu teel a ràññee quand même ci lii di cinéma d'une manière générale fii ci réew mhm. naka nga def ban parcours nga am ba def ba ci li nga xam ne ni mooy impliqué wu ci li nga xam ne mooy euh, cinéma fii ci Sénégal d' accord waaw sama sama parcours moom euh, xaw na gudd tuuti nag. Euh, parce que man en 1982 laa dugg Daaray Kocc. Euh, ma nekk Daaray Kocc ba léegi it maa nga Daaray Kocc. Mhm. malgré xëy na gën nañ ñoo gis ci scène bi gën ñoo gis ci télévision bi. mais ba mhm. léegi Daaray Kocc mu ngi existé. Euh, waaw depuis boobu ba léegi nag maa ngi ci yoon bi maa ngi dox ay ñeneen di ma soxla di ma gis di ma woo may liggéey ak ñoom. très bien si loolu nag laa nekk di liggéey ba yàlla def waa Marodi. Mhm. woo ma ci benn film. d'accord bu ñuy wax la série Nafi. na fi laa dem liggéey ñu en cent euh, deux mhm. ma liggéey ak ñoom. alors nga baal euh, bi nga absenté woo ak waa Daara yu Kocc xam naa dinañu ñëw certainement ci évolution bi nga xamee ne vraiment nemmeeku nañ ko ci. mais lu jiitu ñu lay découvrir récemment ak génération bu bees bi producteur yu bees yi tamit. Daara yu Kocc ban parcours nga def ba yegg si wala nga euh, liggéey ak ñi nga xam ne ñooy waa Daara yu Kocc moment boobu nga xam ne aussi c'était pas évident quand même nga évoluer ci cinéma par rapport ak moment bi. waaw Daara Euh, euh, Tonna Chef daf ñu soxla woon si benn film bu ñuy wax Adama ak Awa la vie juvénile euh, boobu ndey Mour Ndiaye moo joué seex yi mu nekkoon double rôle si la ñu traité daan jëm soxla woon. Hmm. boobu maa ngi def informatique mairie de la ville bu Dakar. mais bi ñu xamee ne nekk naa ci nekk naa ci nekk naa ci yàlla def Euh, falaa bàyyi sax euh, informatique bi ma doon def euh, mairie continuer si théâtre bi ñu nekk si ne bii nga xam ne def nañ tournage u Adama ak Awa Seex yi jeex mm. tonton Cheikh aussi daf ñu woo macha allah yal na ko yàlla yërëm suuf oyof si kawam mm. daf ñu oo nañu léegi comme film bi jeex na je vous remercie comme ay jàng da doon jàng nangam nangam mm. léegi da dem ngeen continuer seen jàng ñi nga xam ne ah boobu boobu yéen a ngi nekk xale tata Marème boobu yéen ngi gën nekk xale gisoon talent ci yéen woo leen ngeen liggéey. non non non du woon gisul talent sax suñu parce que boobu dafa soxla woon ay jeunes. ok pour Awa bi. bu Bob Marley bi. mais boobu daa rek ko ci ñaari jeunes ñoo fa nekkoon xaw ma ñett. ok léegi nag mun a dem ba sax mu ki doon joué rôle jàngoo ci Apollo mun na ko ma ay jeunes. ok pour ñu def film comme foofu man siège laa récolte ak fu ma dëkkoon si Medina benn d' ailleurs moo taxoon ma xamante ak ñoom léegi nag bi mm. problème suba ne ma suba ñëw mm. a mm. euh, bi ma ñëwee mu expliqué ñu li doon xaar ci ñun waaw ñun tamit ñu d' accord accepté ñun ak yeneen jeunes yu jëliwaat biir Medina ak Gueule Tapée ak feneen ak feneen mais ñëpp presque dañ doon léegi nag bu ñu expliqué li mu doon xaar. Hmm. Euh, répétition yi c' était trois fois par semaine lundi mercredi et vendredi. mais à parti de 17 heures. xam nga ku ci largement le temps jàngi wàcc ñëw ah, pour mën a dem répétition. Hmm. su tasee ñu ñibbi. donc donc bi ñu gisee personnage yooyu ci yow ba wala hmm. ñii di waa daaray Kocc. Euh, ci noonu nga décidé alors impliqué wu ci cinéma. bi bii parcours bi parcours bi nan la demee woon <laughs> Tata Marème. bi loolu jàllee bi seex yi jàllee. Euh, vraiment la ma virus bi dugg nag. mais je me suis dit ah tiens je vais continuer bi ma ñëwee ma expliqué ko man a dama bëgg a continue nekk daaray Kocc. ok euh, mu a ma mu ne ma léegi comme loolu la te xale nga. léegi dañuy dem waxtaan ak say waajur ma ne léegi man sama sœur laa nekkal fii Medina mu ne ma léegi dañuy yónni Boulaye ak Demba Sow ñu waxtaan ak sa sœur bi hmm. noonu la ñuy waxtaan ak sama sœur bi sama hmm. sœur ne ah loolu garaam mu fekkee bëgg na euh, elle peut continuer loolu mooy sama nekk daaray Kocc nekk fa nekk fa nekk fa moment bi nga xam ne daaray Kocc jël na pause si laa commencé nag di liggéey ak ñeneen ñi alors ndax c' était c' était évident nga juddu nga nga baal ma ci wax ji nekk sama mbokku Rufisquoise hmm. mais également nga juddu ci famille boo xam ne aussi certainement <laughs> Euh, évolué wuñ woon si euh, cinéma d'une manière général nan nga def vraiment ak parcours bi tamit mhm. yan tolof tolof nga xam ni vraiment dundoon nga ko ci moment bi ngay décider pour évoluer ci lii di waaw xam nga ñun en tant que femme dañuy am toujours ay ay gàllankoor yu demee noonu mhm. mais man damay sant sama côté man aw ma benn gàllankoor loolu malgré amoon naa comme yu demee ni moment boobu ay li ñu wax ay mbiru euh, yenn chantage yi nga koy am yooyu yow mosoo ko dund non non sincèrement la main sur le Coran ah, mosuma am problème boobu wax dëgg yàlla mosuma ko am mm-hmm. bi ma koy dégg nag nit ñi di wax di wax mën na nekk am na mais man mosuma rencontre mais am na ay difficultés yoo doon dund moment boobu bi nga décidé pour évoluer ci cinéma mm-hmm. tata Marème Niang certainement amoon nga ay difficultés quand yoo xam ni dund nga ko ci moment boobu maanaam si cinéma wala au de ma famille si ci sa famille ci bët bi ñu doon gisee wala bi ñu doon xoolee actrice aussi ci réew mi ak ci sa ci a sama yaay bi ma nekkal ni euh, bu ma gisee si bo marle bi ñuy tux ak daan ak yooyu pour moom dafa yaakaar loolu c'est réel dañuy tux cigarette carrément dañu naan sangara carrément là mu ñëw wax sama yaay naka non non non kii li nga ko dugal baaxul ndax kuy tux di naan jigéen ak genre quoi loolu moo amoon na mhm. je lui expliqué ne que maam mun naa ma ne ko tuxuñu mhm. naanuñu mhm. léegi si butéeli ndox la mun naa man que këyit yi nga gis nii li ay këyit la rek ñu ràbb nii rek teg ko mm. côté boobu daal laa xam ne amoon naa fa benn mais à part ça benn problème côté yi bari wuñu mm-hmm. mm-hmm. aussi mm-hmm. si la gënoon difficile quand si la gënoon difficile mais du côté xaalis du côté côté comme ni ñu koy waxee naan ay dañ lay dañuy profité sa yow pourcentage genre quoi man damaa koy wax au effort chaque fois fu ma toog man nee naa loolu musuma arrivé man ma musuma arrivé man musuñu ma def pourcentage côté boobu. donc yi ci ban côté la woon kon maman. waaw man amoon benn difficulté difficulté yi si nekk rek. mooy comme ni xale yi engagé. Euh, métier cinématographique bi. ni xale yi engagé série bi. Hmm. xëy na peut être loolu moo tax sa gars yi léegi def peut ay chantage. ak xale yi mais euh, ñun moom. Hmm. peut être xëy na parcours bi ñu jaar. Hmm. ba agsi fi ñu agsi moo tax. ndax ñun tamit euh, au niveau de Daaray Kocc. tëbu ñu tëb nii rek ñëw nekk au devant de l' écran non dafa am fu ñu jaar dañu rame. ñun dañu rame rampe rampe rampe rampe rampe rampe ba agsi fi ñu nekk. mais ma moment boobu xaalis amul. su ma la waxee bi ñu tourné Aramak 7000 francs lañ ma fay kenn du ko gëm. ci ci ci ci ci Adama ak Awa bi. parce que du du woon question xaalis mais mais mais niveau bi mu toll woon la. Hmm. Euh, euh, éducation bi mu doon joxe la. Hmm. parce que bu boobaa maman boobu boo marle moo fi nekkoon. di def buzz di def feu et flamme hmm. xale yëpp ko jóg na Bob Marley Bob Marley il fallait ñu def quelque chose boo xam ne c'était pour les gens pour les jeunes ñu xam kii est Bob ak lan mooy Bob Marley ak ñoom fi ñu yaakaar ne fa la Bob Marley di defee defewul foofu looloon mais amul woon sa xaalis jamono boobu d'accord Tata Marème moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay ñu hmm. fekk ko fii ci këram fii ci Rufisque hmm. Tata beneen mbir boo xam ne ñu bari di nga victime da ngeen liggéey lu nekk ci culture liggéey ko ci cinéma mhm. mais est-ce que tamit jëluñ leen ci yenn maison de produit yu mag yi juste rek di leen nax te yëgu leen ko waaw ki ñuy nax mun na nekk hmm. nax nit ki mun na nekk may ma dama ne nit ki ki lay nax hmm. yaakaar na mu lay nax naxu la hmm. boppam lay nax mais jàpp nga ni li ngeen représenté ci culture li ngeen di jar vraiment jëndee nañ leen ko vu que gis nañu la nga évoluer ci yu demee nii li nga xam ne mooy maîtresse d'un homme marié lépp loo xam ne daal wala lu ci bari ci jamono ji li mbaroo di di liggéey ñu ngi la fay gis ndax jàpp nga ni nga tontu mbokk boobu liñ leen war a fay mu ngi dellu si ci yéen parce que moom nee na yéen ay mag ngeen dañ leen xëcc nii rek di leen woon écran bi di leen jox ay petits sam ngeen dem non non non non non man bokkuma si ñooñu hmm. te xam naa ne it ñeneen ñi man bark sëñ Babacar si laay wax man ku ma liggéeyal fayoo ma du ma la parce que du ko nangu man du ma ko nangu parce que mënu ma nekk ci aar bi depuis 1982 ba tey di raame di raame di raame tey ba ak si fii hmm. ma xam li ci biir parce que nag amaama la man je suis actrice mais je suis caméraman euh, dama doon def montage hmm. dama doon def script hmm. te lépp daaree Kocc laa ko jàngee. ngoon xam nga man xam naa lu bëri na ci biir. Mhm. alors tataat beneen mbir boo xam ne aussi ñu bari ci askan wi dinañ ko laaj. mais mhm. nga am possibilité macha allah sa personnage mën a dem ci li nga xam mooy mhm. comédie. Euh, ci drame ci cinéma. Euh, toujours dafay nekk personnage boo xam ne heure boo affiché rek ak ci fu mu mënti doon quand même ñi apprécier ko alors éducation bi déjà la moo la may possibilité nga mën a def loolu w lu école daara ko ci laa jaar fa laa jàng li may jàng lépp te macha allah li yëpp Cheikh Tidiane Diop daf ñu ko doon jàngal. Mm-hmm. daf ñu ko doon jàngal te dama naan actrice wala acteur yaa xam lu nga doon. Mm-hmm. ah doit être polyvalent rôle bu la jox rek. war nga ko mën incarner personnage ba ba borom bu paree ñi lay seetaan wala borom bi la ko jox. Mm-hmm. mu kontaan si parce que loolu personnage la rek. personnage bu a bindal tegal la ko nii. kii dafa war a mer kii dafa war a def jooy kii dafa war a rey dafa war a ma nit ki boo xam yow fi ngay teg sa tànk fan la. mais mais est loolu moo manqué xale yi léegi tata parce que tamit xale yi léegi da siiw def benn série benn un an deux ans mu xewi nga xewi ànd ak moom alors yéen nag macha allah ça des années yéen a ngi évolué te heure bu ngeen génnee rek quand même yi gën a nangu vraiment talent ak liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def est-ce que kon dafa lu manqué xale yi léegi ba ku ci xew ñaari fan métier bi xam nga nit ki boo dugg si dara te comprendre roo ko doo mën a dem ak moom mm-hmm. mais ñaa ko comprendre li ngay def mm-hmm. Mm-hmm. moo tax xale yi di def loolu ñuy def te et puis nag un artiste doit avoir la tête sur les épaules du ne dama def benn film nit ñi xàmmee nañ ma di gauche à droite rek du n'importe quoi loolu day tax nga gaaw a wàcc gis nga nit dangay ngay humble te xale yi nanguñu ku leen jàngal am na si ñoo xam ne nag nangu nañ ñu ne leen fii ak fii ak fii ngay teg sa hmm. am na ñoo xam ne nag bëgguñu. pour ñoom nañu sañse euh, sol body xëcc seen pantalon mu dal hmm. pour ñoom yaakaar ne bu ñu génne benn ci télé bi. Hmm. nga romb faatu ne la gis naa la bii faatu ne la gis naa la bii rek nga yaakaar ne fa lay. maanaam bës bës daal lañ ci bëgg léegi c'est vrai que ñu bari loolu lañ jàpp léegi loolu aar bi aar la di éducation ñun dañuy def loo xam ne euh, dañ ko def mécc bëgg nañ kii kay toog si kër gi di ko seetaan jàkkaarloo ak njabootam mm-hmm. Mm-hmm. njabootam muy góor di jigéen nga toog ak say doom sa doom di seetaan yow doo sëgg doo rus mm-hmm. wala nga jëkki jékki fay télé bi wala nga jékki na xale yi jóg leen ñun bëgguñu loolu alors à la base cinéma nekkoon loo xam ne tamit éducation lañ ci soxla woon mais également yee askan wi lu bare bari lu jëm ci seen doxalin ak seen dundin ndax jàpp ngeen ni loolu cinéma fii ci réew mi en tout cas mu ngi koy représenté ba léegi ci li ngeen doon représenté ci éducation ci ndaw ñi ak ba léegi cinéma mu ngi koy Euh, amul différence benn garab la rek bu bari ay branche comme garab bu bari branche rek ñu ne lii théâtre la lii c'est pur les clowns lii c'est pour les comédiens lii c'est pour les acteurs et les actrices mooy cinéma bi. septième art. mais ñëpp benn bi la xam nga éducation même cinéma bi ñi koy def sax am na bu même euh, les films américains wala les films français. dañ koy def mais si biir loolu ñuy def am na côté boo xam ne mu ngi lay jari mu ngi lay yee même bu baree ay fital ay pistolet ay rayaate ay am na côté boo xam ne mu ngi lay yee. mais yow mi koy seetaan yow yaay xam yow kii li mu la jox lan la lan la bëgg nga jël ko si yow la mu la bëgg nga jël ko si mu lay jariñ yow jëloo loolu mu lay jox te mu lay jariñ bul xool rek nga xaxataay ree ay yow kii de du nangam dem non parce que kooku ngay ree di la xax di la xaxataay loolu am na lu mu lay jox même ree xaxataay yooyu mu lay def pour nga def ko sax mm. mu ngi dindi sew stress très bien alors alors Tata la leader bu ñu dootul présenté xam naa balaa ñuy jeexal dinañ ci waxtaan lu yaatoo yaatu muy ndam li nga xam ne indil nga ko culture jële ko fële ca mm-hmm. diwaanu Ouagadougou Burkina Faso alors mm-hmm. Tata bëgg naa vraiment nga wax ak sa doom mm-hmm. xarit soppe yi nga xamee ne vraiment jamono ji ñu ngi ci euh, dëkk bi di évoluer ci domaine yu bari mm-hmm. un ci sa jaar-jaar li nga xam ni jot nga ko dund ci sa vie ci cinéma ci sa théâtre euh, ci yu bari bari ba yegg si fi nga yegg si lan mooy li la ci gën a ma mais également loo xam ni jàpp nga ni war na nekk message de motivation euh, pour génération bu bees bi waaw dina am na si rek loo xam ne daf may marqué muy actuellement nii parce que dañ ne loo xaarul si xaaru du la fa fekk Euh, laf Njaay naan boo yàggee si biir teen baak fekk la fa tey moo waral tey ma dem naa loo xam ne xalaatuma ko fooguma ko woon parce que dem Burkina c'est la première fois mm-hmm. ma dem fekk mu sedd sama xol lool mm-hmm. Mm-hmm. lool muy lii nii célébrité de nga xam ne mu sedd sama xol lool parce man xalaatuma ko bi ma demee si oto bi bi ñuy dem la ñuy soog a Yacine Sané génn carte yi wan ñu ko am ko xool ne eh waaye yéen gis ngeen carte yi mais tamaram yow de si nit ñi primé nga bokk man a man ñëpp daa di xool carte laas lañ gis. Hmm. Eh, carte bi nii. Hmm. sama kanam a ngi ci. Hmm. kanamu Kouthia mu ngi ci. kanamu Oumou Sy mu ngi ci. Abieuse. Eh, kanamu DJ Awadi mu ngi si. des ñëpp ay burkinabé lañ bi ñu bari doon wax ni bad buzz la woon. Kouthia bokk na ci ni ñu eh, foofu ak yeneen ak yeneen kon mu ngi ci woon moom Kouthia. ci mu ngi ci invitation bi ci carte invitation dañu ko waroon nominé. mais je ne sais pas ñëwul peut na loolu moo tax jox ñu ko nomination bi millions mm. parce que ñun gisuñu ko fa woon absolument mais carte yi ku xool xam nomination bi wane na ni jot na ci sax moom euh, Kouthia Alliance Samba Sine voilà mais nag juróon na polémique parce que ñenn ñi dañ doon wax naan ni bokkul ci ñuy nominé ñenn ñi di ko wax donc loolu tamit xanaa nga leeral ko rek waaw man polémique boobu sax fii laa ko Sénégal ñu koy wax mais ñun bi demee ñu nominé man gis naa man ah Kouthia da ñëw na mm-hmm. mais bi ñun fanañ toog mm-hmm. Mm-hmm. gis mais man gisuma Kouthia mais gis naa ne moom si ñun war a nominé si la bokk alors lii ñu sa ñu sargalele la ko muy euh, li nga xam ni moom laa yëkkati nii ñu sargalee la ko fële ca diwaan yu euh, Burkina Faso ngir wane taxawaay bi nga xam ne am nga ko ci cinéma mm-hmm. Mm-hmm. ak évolution bi nga xam ne aussi cinéma am na ko ci Afrique mm-hmm. lii duñ ko jox ku nekk ndaanaan yi nga xamee ni nangu nañu seen liggéey ci cinéma Afrique ñoom lañ doon sargalee lii suñu tata Marème euh, bokk ci jëlee ko fële ca diwaanu Ouagadougou rédaction bi di la encouragé aussi ñaan yàlla na ci trophée yu bare bari topp ci barke ngay wax génération bu bees bi kon bi nga xam ne ñu bari tamit amuñ ci ñoom confiance ñu bari aussi a ma si wax. waaw wax boobu sax dama koy dama koy métti sax tout temps dañ koy wax dañ naan ay xama promotion canapé xale jigéen yi nanga man mooy li léegi rek soo yombalee sa bopp rek gaa yi la ni nit ki ni ni naan ni naan uude nu ma la gisee noonu la lay ëwalee c'est ça. nit ki ni nga ñëwee si moom rek noonu lay jàppee métier mi dafa am ñoo xam dañu jóg pour wane seen bopp wane ne nii laa mel maa ngi nii bës da nga gis cinéma euh, léegi da gis benn xale bu jigéen mm-hmm. soo ko woowee si benn benn film moo xam série la moo xam pièce théâtre la moo xam ne mu doon mais dañuy sol yenn sol yoo xam ne c'est pas adéquat méngoowul sax ak la muy joué koo si wax na naka ah yow de su ma sañoon li nga li nga sol nii nga changé def ni def nii mm-hmm. mun la maire dimbali ma lii day dem international fu ne la lay génn mais du fu nekk lay génn ba tax nga def lu n'importe quoi du noonu. dafa am message boo xam ne aussi da nga koy jëmale ci xale yi ngir ñu gën a fonk seeni waajur. Mhm. lan ngay fàttaliku ci moment yoo xam ne vraiment sa waajur daanaka na dund ngir xale yi sa waajur bu jigéen évidemment laa bëgg a wax daan na ko dund ci ay sacrifice en tant que lébu en tant que aussi ci dëkku ni lébu ku ko xam xam ni vraiment daawul nekk dund bu yomb. Mhm. ci message boo xam ne mën nga ko mën nga ñu ko wax xale yi génération bees mhm. euh, pour ñu gën a mobiliser wu ci seen loo xam ne dund nga ko ak sa yaay te ba léegi vraiment yaa sama yaay su ma koy wax. daf may daf may daf may daf may daf may travailler parce que sama sama vrai maman bi ma jur xaw ma moom dañ ma woon fotom am naa sœur ma bokkal ndey ak bàyyi nag. elle la yaay bu jigéen. waaw sama yaay bu jigéen jotuma ko xam dunduñu bi may bi muy gaañu booba xale la mais am naa sœur boo xam ne ñu bokkal ndey ak bàyyi euh, mu ngi fi sama maguyaay yaay moo yar sama magu yaay tamit dundu nañ mu nekk mu nekkoon une brave dame. comme ni ko xee yombul parce que jamono yooyu dëkk bi lu meloon ak léegi euh, meloon noonu. Mm. dafa xawoon metti sama yaay ñi ko xamoon ñëpp danoon jaay cere. sama yaay da doon jaay cere takk ndiggam pour njabootam mën a lekk njabootam mën a dund jamono boobu époque bu métti boobu bu métti boobu jamono yàgg na parce que sama yaay mu ngi gaañu 1985 la gaañu mais avant muy gaañu dund ak moom dund boo xam ne euh, boo gisee sax ni ni may waxee maanaam j'ai la tête sur les épaules moom moo moo moo ma influencé moo ma mm-hmm. parce que daf ñoo yar ba pare ma gis coono bi mu nekk woon te du jàmbat aw ma lii dama sonn dama nangam musu ko wax. te jamono boobu nga xam ni courant amul woon te daan takk ndiggéem muy taw muy naaj muy tàng muy defar cere ma nekk si wetam ak njabootam ñun ñëpp ñu nekk si wetam. bu tam xarit masaan jot dëkk bi ñëpp li ko daan commande cere kenn xamul bañ ko tudd ko neex cere lañ la tuddoon koo wax mu ne yii meer càndum neex cere moom ay jaay cere tam ay saaku saaku saaku cere lay teg di tey di ñuy laala muy jaay te loolu yëpp c'était pour sa famille pour ses enfants mooy loolu daal mu nekkoon loo xam ne dama am si moom référence ma joxoon ko ca trop respecté ko trop parce que damaa gis ne dafa am fu mu jaar daal. <laughs> xam naa sa xol sa xol sooy na sax tata mais juste que tamit li rek mooy génération bu bees bi gën a am considération quand même ci par rapport ak évidemment li nga xamee ni yéen yéen a ngi ko représenté mais également waajur yi def nañ ko ci yéen ci li nga xamee ni mooy éducation sa xol tooy na tata xam naa rek euh, fi may jeexalee encore une fois mooy di la remercier encore une fois ci li nga xamee ni jëlee nga ko fële ca euh, diwaanu Burkina Faso Ouagadougou nga xam ni bokk nga ci actrice yi nga xamee ni sargal nañ leen fii ci Afrique tata ñu nga baal ñu nga baal ñu nga baa ñu ñu ngi jéglu baax Marème euh, Niang de tata Marème Niang fi nga xam timit mooy également Aramer Thiaba mooy suñu yaay ji fa nekk actrice principale nga xam ni yéen sénégalais yëpp am ngeen choix ci li nga xam euh, a mooy xale yi comprendre xam ni aussi en dehors de li nga xam bu dul cinéma bu dul nangam sax mais ni ñu daan dundee quand ak li nga xam aussi ñoom daan nañu ko ko def ci li nga xam mooy coono wan leen également ni kii di yaay également dafa am responsabilité boo xam ni war na ko am en tout cas ñu ngi lay encouragé waat rédaction bi di la félicité bu baax a baax ci ndam li nga xam ne indil nga ko Sénégal di ñaan aussi autorité yi ministère de la culture ak ministre beeg ñëpp ñu jàppale ñu mel ni ñi nga xamee ni mooy suñu tata Marème Niang alors mu mel ni tata kon xam naa bala ñuy jeex rek nga ñëwaat si tuuti li yonent bi doon jàngale ni yaay école la cest à dafa am loo xam ne sa yaay dala ci dala koy jàngal en dehors nga xam ne mooy école ak yooyu hmm. ci li nga xam ne dund nga ko évidemment ak sa yaay ak bëgg-bëgg bi nga xam ne aussi amoon na ko ci yéen ak coono bi mu doon daj tamit ci nangoo liggéey ngir yéen hmm. sama yaay jigéen loolu boo xam ne jigéenu jàmbaar la man su ma si moom rek sama xol bi day tooy parce que sama yaay musul jàmbat na ama sama yaay musul jàmbat na bazin sama yaay àddinaam yëpp mu ne ma de yal naa dund ba dem ziar gi Seydina Muhammad màkkatul mu karam su nit masaan ñëw di ko tàggu dem màkk sax ba si buntu bu koy sama grande sœur euh, bi mois rek la am sama taawu yaay la ay nga bàyyi kii tàggu ne la a yonante bi ay waaye dama la jàmm ñoox jàmm salaam te nga gaaw wàlla ma ma dem màkk sama yaay dafa jàmbar yoonu màkk ba dee bëggoon Seydina Muhammad bëggoon sëriñ Babacar si sama yaay moo tax ma bëgg sëriñ Babacar si néegam calendrier boo ko ma may ko ma ka nga defal ma néeg bi yëpp nekk defoon ay photo sëñ Babacar si te yii xale yi takk te photo sëñ Babacar si nekk sax mm. da ko mën a sëñ Babacar si liggéey na ba dee demul màkk te lépp njabootam du saloon basin takkul or mm. takkul dara mm. lépp njabootam mhm. tey dañ daan toog ñu toogee def ñuy yedd jigéen ni la war a mel jigéen ni la war a comporté woo jigéen ni la sol man dem naa ba am jëkkër mhm. di ànd ak sama jëkkër mu woo ma bu ma ñëw mu ne ma Marème Niang ma ne mu ne ma mhm. jigéen nga da nga am jëkkër da ngay sëy pantalon yii sumi ko nga teg ko jigéen buy sëy day sëy bu yër bu jot nëbb ay cëram say cër sa jëkkër rek moo ko war a gis sama yaay lu mu wax julli boo ta julli jotee bu na laax bu ne ee eh, noonu da gaa ngi noon de ñoo leen ngeen jàpp bu ma tamal julli ba tey mënu maa toog fenn te li ma wax nii ñëpp àddina mën ma seet man soxtu gétt te jullu ma tout à fait mel feebar te moom moo impliqué éducation boobu ci yéen moo ko def suñu famille doomam yëpp waxtu julli ak ñëppay julli très bien fajar gi fëgg daf ñuy fëgg ndax sama maam bi jur sama yaay boobu mm, mm. sama maam bu danaa nodd jàkke mm. bu fajare buy noddi mm. dafay yee ñëpp koŋ koŋ koŋ jóg leen jóg leen julli jot na mm. bu demee nodd ba daaneel day ñëwaat xool ndax ñëpp yeewu nañ wala déet ñun éducation boobu lañ def si ñun ba tax na man mënuma dara mënul fees sama bët parce que li jiitu li jiitu ci sa éducation mooy sa yaay moo ko def si yow ndax à de sept la ma téye ngoon à de sept loo def si xale daf koy téye yar na ma yar ba fu mu ma war yare yar la ci liggéey di liggéey nga koy gis di sonn bépp waajur bu jiitu yal na la yàlla xaale àjjana képp ku sonn sa njaboot rek da nga jiitu yal na àjjana noflaay nekk sa këru noflaay tata Penda Diallo maa ngi lay jaajëfalaat bu baax a baax tata maa ngi nuyu tamit euh, sa kër depuis euh, Allemagne jaamaan maa ngi koy jaajëfal ak xale yi ñoom bële la koleel yëpp maa ngi leen di nuyu di leen encouragé aussi bu baax a baax ci école bi alors vraiment rédaction bi amuñu sa fay tata yaa ngi ah, jóge nga may possibilité sa doom yi nga xam ne ñoo nekk ci rédaction Senbuzz di la a yàgg gën a wér tata Marème di leen ñaanal yéen rek ngeen am jàmm di ñaan rek seen liggéey yal na ko yàlla gën a barkeel man li ma wax rek góor waru toog na yàkkee na yasar ndax liggéey am na fi ku nekk foo dugg sa loxo mën am doon daan sa doole nan ko def yéen léegi métier bi ngeen nekk métier bu noble la gis nga man chaque jour dama koy wax man la ñun aar bi ñuy def dafa noble dafa noble mais am na ñu bëri comprendre ñu loolu xamuñu ko ngoon yéen ñi nga xam ne yéen nekk si média bi maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yal na yàlla barke seen liggéey seen chaîne bi seen bés yal na ko yàlla def sa kaw a kaw a kaw fi nekk yëpp macha allah te yéen ñëpp ngeen fekk te jariñu lépp loolu xam ne ragal ngeen ko yàlla boo leen ko gis Seydina Muhammad ak sëñ Babacar Si merci beaucoup mbégte la woon ci ñu am ak moom jotaay Tata Marème Niang yow mi bàyyi xel euh, mbaroo di suñu yaay mère Chaba moom la rédaction seen bés doon am ak jotaay di gërëm leader yëpp ci bàyyi xel bi pot yaa ngi koy léegi borom mbaroo maa ngi lay encouragé aussi grand jot naa sa dernier message et merci beaucoup en tout cas mm-hmm. sur la chaîne des leaders fi amaanillah